lan la ñu indil bu njëkk ba Moustapha mhm. xale bu pur bu set boo koy xool ci bëtam mhm. ci bëtam ngay liir pureté xale bu sell ak innocence sell gi mhm. sell gi Moustapha mooy pureté bi sell gi waaye am na xale yu sell waaye léegi xale boo ci xool am na am na xale yu sell ba tey de waaw am na am na macha allah am na am na ñoon xam nañ ci dara xam nañ ci dara ci association islamique mhm. mais ay xale yoo xamante ne bu ñu la nee jàkk ba jam la seen xef yi <laughs> yaay njëkk a sëgg de seen xef yooyu nga xam ne dañ koy monter mu mel ni ay rido moo rido seen bët yi moo tax fi mu nekk nii ndoxus bët amatu seen xef yi moo muur moo seen xef yi moo muur seen seen xol yi amatuñu gàcce hmm. amatuñu gàcce gisoo xef yi dama mel ni ay rido hmm. dafa muur seen lépp ñoo mu seen amatuñu. Mm-hmm. amatuñu mm-hmm. ndoxu bët. Mm-hmm. amatuñu ko ñun loolu dañ koy nangu. au nom de quoi ñun dañu bëgg suñu doom yi pur sell loolu dafa indi ci njureel la dimension spirituelle yow nga jël xale boyal ko mu dema dema dem ba li nga ko boyal noonu ci bakkanam lay tax mu am ko poñetu alalu àdduna tax na gis nga liñ fa doon def ay Dubaay porte à porte xaw porte-à-porte xoolal boobu degré ci mbon xoolal fii ay xale yu jigéen yooy gis yoo xamante ne dañ lay taxaw di daggal saaga ndey ay sëriñ daara mhm. xoolal ay xale yoo xamante ne dañu taxaw ne la que man damay dund sama vie sexuelle soxlawuma jëkkër mhm. loolu lañ bëgg a roy loolu lañ bëgg suñuy doom xale yu jigéen yi nekk di tux jamono ji xale yu jigéen yi tux loolu koy man est du tux ay jàmm sax mhm. man digg nag. waaw man digg nag léegi nag gis nga loolu. Moustapha ñun boo waxee dañ naan seen vie la ah dañ naan seen vie la c'est ma vie. gis nga nag loolu. façon boobu ngay gis ak façon bii leen féministes yi bëgg a dafa nekk ci société bi benn kull kuréel gu ndaw goo xamante ne yàlla xam na ne boo leen gisee nga naan nii li réew mi nii la mel mukk ci àdduna hmm. mukk parce que mënaluñu Sénégal loolu. réew mi dafa am nuñ ko mooñee dafa am nuñ ko tabaxe mën a luñ ko xëy boyal jigéen ñi mbon gu nekk ñu nekk ca ñu ne leen sañ ngeen ko loolu hmm. féministe mën a luñ ko réew mi ndax réew mi dafa am nuñ ko mooñee gis nga fii li ma leen di wax ak seen xale yi ci seen série yi nee naa leen bon ren bon leen rek te noppi hmm. Sénégal tuuti ngeen ci na boo xam ñu ne laan euh, waaw mbon gi fépp la hmm. pour ñoom daal sa réew mee yàqu déedéet buñ ko dalal xel réew ma yàquwul de ñoom ñoo yàqu fii ñi fi doon baax. Mm-hmm. ba tey ñu ngi baax di sell xam naa ci bu baax dara. Mm-hmm. xam naa ci bu baax dara ndax mbooloo yi rek laay jaxasool yow xam nga ci dara. Mm-hmm. waaw léegi ànd Sàmm Jikko Yi lan mooy doon riposte bi. Hmm? qu'est-ce que vous comptez faire ànd Sàmm Jikko Yi. Moustapha ci biir Sàmm Jikko Yi. association islamique yi. ñoom ñëpp seeni commission féminine. dañ ci joxante loxo mu nekk lu toll ci cent quarante six organisations islamiques yoo xam ne seeni commission féminine dañ joxante loxo ci biir sàmm jikko yi ñu tudd plateforme boobu ndey askan bi lii ma lay wax nii de dañu théoriser les fiertés féminines macha allah les fiertés féminines fierté bi nga xamante ne moom la jigéen war a am ci féminité ndax féminité mooy suñu doole Moustapha. jigéen bu tàggoo ak féminité am rek ñàkk na armam bëgg na a efficace. féminité soumettre na sax ay yonent. Mm-hmm. jigéen bu su soumettre na sax ay yonent. am amul lu mu mënul. ci féminité amul lu mu mënul amul lu mu mënul wala amul lu mu mënul. moo tax alxuraan sax daf ne inna kayda kunna azima mm-hmm. nee na jigéen aka ñoo bari pexe. Mm-hmm. te pexe yooyu féminité la. ndeysaan dëgg la. alxuraan dafa yéemu ci loolu mu ne inna kayda kunna azima mu ne mm-hmm. ay jigéen ak a bëri pexe pexe boobu féminité la féminité boobu bés boo ko ñàkkee yow dootoo jigéen mm-hmm. dootoo jigéen ñun loolu lañ féminité boobu lañ théoriser léegi bëgg nag mm-hmm. fépp fu ñu mën a fare suñu askan ak suñu nguur gu bees gii ñu ngi préparer ay documents yoo xamante ni li jëm ci wàllu jàngale ak yar matière scientifique yi mhm. li jëm ci wàllu spiritualité te mooy diine ak ngëm lu jëm ci wàllu santé bi nga xamante ne tey jii sunu jëmm yëpp yàqu na ndax planning familial bi nga xamante ne féministes yi indi nañ ko fi mhm. malthusiens yi nga xamante ne ku jur la ñuy bañ a gis loolu ñun dañu taxaw pour am ci ay taxawaay def ci suñu ay chantier intellectuel yu scientifique tënk ko ci document jox ko gouvernement xamal ko ne bul defee ne benn nopp dinañ la ko bàyyeete nga dénk ko féministes yi ñu lëmbe réew mi ñun ñii noppi war nañu de ndax dañoo defe woon ne buñ nekkee ci daara ji diggante jàngale ak yar ak waare ñun suñu féministe lu ñu dem ci biti di ko indi daf ñuy nuru waaye ñii dañoo dem jaay ñu jënd ñu ay financement ñëw toog kon nag dañoo fas yéene jóg am une présence militante sur le terrain yëkkati suñu kàddu ba gouvernement xam ne toogatuñu di xaar kenn de dem di ratifier loo xam ne boo ko indee muy musiba naaru laa yu diine ji ba pare di ñu tënkaale ok ñoom ñu ngi ci ay pétition ak yu ni mel pétition contre pétition ay ca acca yéen yéen yéen lu ngeen def da ngeen di contre pétition wala yéen yéen yéen yéen lu ngeen di i lox da ngeen bàyyi ah? fukk ak juróom lañ waa féministes yi waaw quinze lañ fukk ak juróom lañu yàlla xam na ko wax ji bari rek kon bëriwuñu duñ fi dara duñ fi dara pétition am na contre pétition am na acca mhm. parce que ni ngay jàkkaarloo la subhanallah saa bu ñu jógee galandiine ji rek léegi ñu ngi jàkkaarloo saa bu ñu jógteelu galandiine ji euh, planning boo xamante ne teguñu ko ci yoon élargissement autorité parentale droit sexuel autonomisation de la femme boyal jigéen dindi fa ko sunu borom tegoon rek mhm. jàkkaarloo nañu ak ñoom ci kàttanu yàlla mbaax ok Amina bàyyi la nga ñëw ci rapport yi. effectivement Moustapha dañuy ñëw ci deuxième ponk bi nga xam ne mooy rapport yi nga xam ne président ba Bassirou Diomaye fay wax na ñu génnee ko bépp dossier bu tegoon loxo rek nañ ko mm. génnee ñi fi sàcc alalu réew mi jël fi lu ñu lu ñu moomul ñu leeral ko ana ban lecture nga am ci loolu. waaw man de li gën a dal sama xel mooy saa su nekk rek. Mm-hmm. nañ fexe justice rek na def liggéeyam. Mm-hmm. gouvernement tal tal askan bi mm-hmm. ndax li may bañ di ko ragal tuuti mooy benn benn institutionnalisation de la délation xam nga Sénégal dafa ëppal bone nee lanceur d'alerte mm-hmm. boo indee ñu compal la tuuti ki nga ko benn waaye bu xorom gis naa ko mu ne Antoine Diome a ngi ne yore 50 millions yóbbu ko Tivaouane jàppal sàcc ngoog te 50 millions yi kon man am naa ci 5 millions gaaw leen. Mhm. xam nga bokk gis lañ ci am. ma ne gis-gis boobu lañ ci am ñoom. voilà donc donc li ñuy gën a ragal rek mooy euh, dañuy dañuy dañuy ragal sénégalais yi ëppal ci ku mere nit sax dem duural ko loo xam xam nga sénégalais. Mhm, mhm, ñoru ñor démocratiquement. dafa des ci yenn principe yi dafa des. ba nga xam ne boo leen booyaloon tey ci ku xam lu ku xamal kenn dara ñëwal rek. Mhm. buñ ko encadré wul rek mën na indi yàq-yàq. te kon kon mbiru lanceur d' yow da nga si am ay réserve hmm? mbirum lanceur d' alerte yow da nga si am ay réserve waaw waaw waaw ci laa xam a am tuuti tuuti daal xel xel bu tey waaye nag xam naa ne moom ay lu yëbën lu mel ni fond wu Covid 19 bi moom. Hmm. xaalis mat naa leeral. Euh, milliards yi gaz beeg tamit. 91 milliards yi xam ne ku nekk am na ci 400000. Mhm. yooyu mat naa leeral. am na ci yoo xamante ne nag moom wax dëgg yàlla kenn mënu ko bàyyi noonu. Mhm. kenn mënu ko bàyyi noonu waaye ni leen loolu ñore reddition des comptes nga xam ne gis nañ fi Sénégal woote woon nañ fi reddition des comptes def ko demande sociale bañ demee ba ca biir kooka ñoo xëy sangaat ko ba mu set. ñoo bëgg ko def président ne deful dara kon xam nga Sénégal tamit comme askan bi dañu xaw a instable mm-hmm. na gouvernement yi di prudent na gouvernement bi na prudent ci Sénégal ñi bañ a topp ñi bañ a topp waaw waaw waaw na populaire waaw nañ nañu nañu prudent ci Sénégalais bi mm-hmm. waaw Sénégalais bi dafa xaw a versatile mm-hmm. waaw ñoo loolu moom mi leen naan toppal mooy wul ne la bàyyi ko yaa ngi koy jeex na am na fi koo xamante ne ministre du ciel et de la terre du lañ ko doon wooy mun a xëy dañ sànk ko ba sat ba mu sat ne deful dara kon gannaaw ba ñoom dañ leen a yónni te yàkkamti leen. Bassirou mi ak Sonko dañ leen a yónni yàkkamti leen. fi mu ne sénégalais yi ndeysaan dañoo nekkaat nag ci état d'espérance bu jéggi dayo mm-hmm. Mm-hmm. kon ñoom nañ gën a concentré wu ci loolu. yaakaar bi bëri na. waaw gën a concentré wu ndax yaakaar bi luñ ko bëgg-bëgg satisfaire mel na ne nee nañ keesi nguur gi dara neewu ci. Mm-hmm. kenn xamul. fu alal jareem mm-hmm. du dëgg mm-hmm. te ñoom loolu yëpp day daal di taxaw ci seen kanam kon ñoom daal loolu yëpp ña ko war a méngoo war koo def nañ ko lijjanti waaye ñoom mm-hmm. nañ taxaw rek ci soxla askan daal di taxaw ci soxla askan bi rek rawatina dund gu cher gi ak njàng njàng mi nga xamante ne ñun moo ñu gën a ñor waaw fan yii passé conseil des ministres bi ñu génn gis nañ président bi ne am na benn direction boo xam ne moo jublu ci ñuy jàng diine jëm euh, seen réinsertion ak yu ne ñu jàng arab laa bëgg a wax sax euh, loole bi ngeen ko déggee seen xel daal na war ngeen ko rafetlu. nga def ne loolu waruñu ko woon def ministère. ah ministère nga gënoon gis. man de bu mu sañoon. Mhm. diine ministère lañ koy wutal. waaw parce que ñoom neen am na benn euh, nu ñu koy waxatee sax benn genre. au conseil du culte boo xam ne ni bokkoon na si programme mu jomaay bi. waaw loolu bokkoon seen programme boo xam ne këru diine yëpp fay daje. mu doon comme genre HCCT boo xam ne. noonu lay demee waaw ah. mhm. di ngeen ci di ngeen ci sawar bu baax a baax. bureau ca présidence amoon na fi. waaw amoon bureau la fa woon. mais ñoom ah. direction lañ ko def léegi ah. direction direction ko def. bureau la woon. waaye diine ci. Mhm. direction mën na ko la jënd. Mm-hmm. diine ji moom direction mën na ko lijjanti diine ji ministère moo ko mën a lijjanti mm-hmm. ñaari mm-hmm. ngëm-ngëm moo fi nekk te nag bu fekkente ne dañ ne démocratie mooy la loi de la majorité jullit yi ñooy quatre-vingt-quinze yeneen pas-pas yi di cinq suñu borom ci kàttanam ak baaxam defal nañu mbokkoo ak bennoo ak jullite goo xam ne mosuñu am benn problème kon bu ñu amoon ministère du culte tey jii yàlla xam na ne lépp diine ji nañ ko saytu ci lam gën a rafete ku nekk ña ñala la fa war a nekkal nekkal la waaye man daal direction am na dëkk yu ko am de am na dëkk yu am ministère du culte ah yoo xamante ne ñoom ñooy ñoom ñooy réglé wàllu weer yi ak yu ni mel yu bëri zakat bi yooyu yëpp ñoom ñoo ñoom ñoo ci man daal man daal loolu mhm. seentuma ci woon ay direction wax dëgg yàlla man daal ministère wala conseil supérieur ministère mhm. man yooyu laa ci seentu woon wax dëgg yàlla Mm-hmm. bu ma la waxee dëgg rek xaw naa ci am tuuti déception. <laughs> waaw baax na kon xëy na xëy na ci kanam. dina ñëw dina ñëw. xëy na <laughs> am na solo bu baax baax euh, yaa daal tey mbégte bi lañu amoon bu baax a baax dalal la fii ci suñu plateau waxtaan ak yow li jëm ci xam naa guerre moom Moussa moom guerre am ak féministe yi du yomb xam <laughs> dinaa leen dajale benn plateau yow ak féministe yi. mais dañuy daw féministe yi ñemewuñu ko buñ demee ba di saaga seen askan di wax ne que ñoom dañ leen relégué au rang de reproductrice mel ni daal sëy ak jur saaga la sëy ak jur daal saaga la waaye dinañ ko dégg de mm-hmm. incha allah am na solo baax a baax ñu ngi lay jaajëfal xanaa rek moo bàyyi la nga tàggatoo ak téléspectateur waaw di sant yàlla bu baax a baax a baax nag di sant yàlla mm. te xam ne euh, euh, bu bu bu bu bu waxante dëgg bi yépp demee